Ama Baldé mu taxaw jonn droite euh, kii di Modou euh, bëgg koo falaxe jàll seeti la neen wala Ama Baldé moo xam ni euh, daanaka nee na Modou Lo ñoratu ko loolay tëj li nga xam ni mooy yëglekaay yi fekk na booba Birmingham Yiliman Ndiaye ubbi nañ yëglekaay yi ca na mu gën a rafete gaa yi gërëm nañ leen sant leen bu baax a baax ànd bi ak télévision bi Aladji Malick TV am na solo ànd boobee yàlla na jëm kanam groupe WhatsApp ba ñu bëggee leen bu baax a baax gaa yi ginnaaw publicité bu am njariñ bi ñu dugg ci gaa yi terminus baa ngi Cheikh Abdou Latif Touré euh, borom man mi nga xam ne euh, daanaka gone yëpp moom la ñuy wër euh, ci wàllu li nga xam ne mooy ak cëriñ te mu koy def ci loo xam ne lu mu jàng la ci alxuraanul karim ba mu sell moo tax mu am yéene dimbali leen ci li nga xam ni moom la xam yéene leen ko bu baax a baax moom mi nga xam ne kaaraange moo ci man ak li nga xam ne moo nekk ki nga xam ne dafa bëgg bayre boo xam ne bayre bu mucc ayib la ubbeeku uh, ni ko danduma ak li nga xam ni mooy kaaraange goo xam ni gu mët sëkk la uh, kaaraange bayra moom uh, daanaka da koy foyee bu baax a baax baax ndamba yi muy defar nag boo ko ñëmul doo ko mën a xam ndamba ya loo xam ni daanaka yu mu gëstu la jàng ko te natt ko ci li nga xam ni mooy asxaar boo xam ni da koy seet bala mu la koo jox bu ko joxee nga xam ni lépp dëgg la jaaroo ak li nga xam ni mooy ay chaîne yoo xam ni bu la ko joxee lépp ay tawfeex nga ci gaaw leen woo ko ci li nga xam ni mooy numéro téléphone yi mu affiché bu ngeen jëflaatee dootoo ko rëccu da nga naan alaaji Malik yeex na ma jëflante ki nga xam ne mooy kilifa gu sell gi moom moomee moo leen di may xibaar yu am solo yi. jërëjëf Cheikh bi ci dimbali ki ngay dimbali askan wi daanaka te alalu àdduna taxul nga koy def bérli nga am ngeen gis ko noonu loolee aadala fële ca Marca yëglekaay footballkat yu bari bu nu agsee bala noo def dara dañ leen di jox journal Marca bi. bi nga xam ne loolee daanaka am ci ceebu lay doon ci football kat bu fay ñëw Bellingham nag démb moo aaye woon carte gi euh, téye journal ba di préparer li nga xam ne mooy tey jii bi mu bëggee euh, recevoir ñi nga xam ne ñoo ànd ak Real Madrid ñoom ñëpp fi mu toll nii tey ci sa mboxloo ba tombeek fukki fan euh, tey jii ci weeru juillet bi nga xam ne moom la ñu commencé lii di pré ba ñu naan ko préparation bi nga xam ne mooy am ci lii di championnat yi ak ligue des yi nga xam ne gone yi war naan caa mën a dem moom moomee loolu la def tey jii ak keneen koo xam ne ma di arga Dakar Bourwane moom it bokk na ci ñi nga xam ne ñooy footballkat yi war a ñëw foofee tey kon daanaka Real Madrid danañu complet comme ni kii di Iliman Ndiaye complet pour war a dem fële ca Olympique de Marseille taxaw na temb gone gi ambition gars yu bari danoo jàppoon day def waaye Ilimaani attaquant yi bëgg-bëggam dëgg-dëgg mooy dem football ca fële uh, ca équipe bi nga xam ne mooy Olympique de Marseille foofee dañ fay samp Ablaye Diagne ndax loolee ànd ngeen ci olympique de Marseille ndax club boobee xolam ak xëtëram lépp la ko jël jox ko ko gars yi ña ngi leen cee xaar bu baax a baax beneen bi Ama da ngeen gis ko noonu mu ne coow yi nga xam ne moom mii di gone ak Pikine gi wax na démb ci li nga xam ne mooy digganteem ak Modou Lo maanaam teg na fële digganteem ak Modou Lo li muy préparé dëgg-dëgg nag di am mokkus moo xam ne moom la bëgg a bàyyil ay supporters maanaam Gris Bordeaux la bëgg a préparé loole tamit du kàdduy kenn kàdduy sëll bu ndaw la ndax loolee ànd ngeen ceeg moom doy na waar ndax kii di Modou Lo armes pour défier.